Baaba Maal dafa nekk koo xam ne dafa gis UMA soutenir ko taxaw ci di suivre di intervenir sax dans les plateaux télé di wax li nga xam ne Puma mu ngi koy def dans les zones frontalières ñëw na sax Puma rendre le visite ñu xam ne nag ci euh, programme Puma am na loo xam ne euh, nekk na un programme de repeuplement mooy fexe. ba fleuve bi amoon ay temps yu passé quarante ans ou plus c' était un fleuve boo xam ne c' était très poissonneux bari woon na jëm ñit ñi ñu ngi ci biir ñu ci mën ay activités de pêche yoo xam ne lu am maana léegi nag avec les changements climatiques ak yeneen mbir fleuve bi léegi bareetul euh, quand même ay poissons programme boobu comme chef de l' jox na PUMA def programme boobu ñun xam nañ ne loolu pour ñu réussir fokk ñu ànd ak locale di riveraine yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci fleuve et aussi subal bi ñi nga xam ne ñoom ay pêcheurs loolu seen activité la te ñu am ci xam-xam boo xam ne aussi dañ ko hérité depuis des millénaires xam nañu ci fleuve bi fan la ñuy mën a def des aires fluviales protégées permettant boo xam ne ay ay ay poissons yi si reproduire ay yenn espèces yi sax exogène ñu dugalaat ko ci ci ci ci fleuve bi gis nañ ay expériences yoo xam ne am na ba léegi visité nañ ko dem nañ ko gis nañ aussi résultats yi ci nekk looloo ñu ne quand ku mel ni Baaba Maal nekk un un lead vocal nekk koo xam ne bu waxee ni dañ koy dégg mu nekk tam un cubbaloo mu bokk ci ci ci xeet boobu alors boo dajalee loolu yëpp Baaba Maal c'est la personne là mieux indiquée pour porter avec nous de village en village de Saint-Louis jusqu'à Diabougou wax nit ñi wax ak cubbalu wax ak dëkk yi chaque jour lan fan la ñuy war a tànn def air fluvial protégé permettant reproduction bi après bu reproduire xam nga day tas ci biir géej gi looloo waral ñu jël Baba Maal pour mu nekk ambassadeur de Puma pour ce programme de reproduction du Sénégal